soxna Khady Diouf soxna Khady Diouf mi ngi feeñ jamono nag ci atum 1913 ci dëkk bu ñuy wax nag Toffi Diouf Toffi juuf nag mi ngi nag ci suuf si nag di Kajoor ci département nag bu Tiwaawoon ci dëkk boobu nag la feeñee jamono muy doomu soxna Assa Mbaay ak sëriñ Moor Jëng Diouf moom soxna Xadijatu juuf nag am na ñu bokkal soxna Assa Mbaay ak sëriñ Moor Jëng Diouf ñu mën cee ràññee nag sëriñ Góora Diouf ibnu soxna Assa Mbaay ibnu sëriñ Moor Jëng Diouf sëriñ Paate Diouf ibnu soxna Assa Mbaay sëriñ Moor Jëng Diouf sëriñ Cheikh ibnu soxna Asta Mbaay ibnu sëriñ Moor Jëng Juuf soxna Roqaya Juuf bintu soxna Asta Mbaay bintu sëriñ Moor Jëng Juuf soxna Sekk Juuf bintu soxna Asta Mbaay bintu sëriñ Moor Jëng Juuf ak moom soxna Xadijatu Juuf mi nañu fas yéene waxtaane tey jii bintu soxna Asta Mbaay bintu sëriñ Moor Jëng Juuf juróom nag la bokkal waajur wu góor ak waajur wu jigéen ak moom nag muy juróom benn waajuróom wu góor yuy ko meññi nag moom soxna Xadi Juuf mook sëriñ Moor Juuf jati bokkoon itam nag ci jàmbaar yi toppoon nag ci ginnaaw ko baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiima di sëriñ Mor Dieng Diouf ñoo bokk nag wenn waajur nag wu góor moom soxna Xadijatu Diouf laataa sax na ñuy xuus nag ci ay mbiram ñu wax leen nag ñii mu bokkal waajur wu góor ak waajur wu jigéen nag ñoom ñooy ñan doomu ndayam ji nag di soxna Roqeetu Diouf bi mu matee dem kër sëriñ Jibi Saar nag lañ ko joxoon ci dëkk bi nag di Tëfi Caareem mook sëriñ Jibi Saar nag benn bant rek lañ am mu sëriñ Omar Roqeya Saar doomu ndayam ji nag di soxna Sekk Diouf bi mu matee dem kër sëriñ Fàllu Njaay nag lañ ko jébbaloon soxna Sekk Diouf nag mook sëriñ Fàllu Njaay itam nag am nañ ak njaboot ñu man caa ràññee nag soxna Anta jóob Ndiaye soxna Jaara Ndiaye soxna Seynabu Ndiaye soxna Sooda Ndiaye sëriñ Dëy Ndiaye soxna Njóoba Ndiaye ak soxna Awa Ndiaye sëriñ Fàllu Ndiaye mi ñu jébbaloon nag soxna Sekk Juuf ci dëkk bi nag di tofi Saar nag la dëkk ganeen njaboot gi mbokkal waajuru góor nag ak waajuru jigéen nag moom soxna Xadi Juuf muy sëriñ Góora Mbuub Juuf ak sëriñ Paate Juuf ak sëriñ Cheikh Juuf ñoom ñëpp itim nag banañ fi nag ak njaboota wala am nañ nag ak njaboot nag gu fi nekk bi mu matee dal alxuraanul karim moom soxna Xadi Juuf waajuram nag sëriñ Moor Jëng Alioune Diouf nag moo ko dalal nag alxuraanul karima ci loxoy waajuróom itam nag la jànge mu wéy nag nekk ak waajuróom wu jigéen nag di soxna Asambaay ba mata dem kër ñu jébbal ko nag ku ñuy wax sëriñ Ibrahima Gay Diouf ci dëkk bu ñuy wax nag siin cuun nekki nag ci diggante ngaay nag ak jogo ci dëkk boobu nag di siin cuun nag la nekkoon ci loxo yi nag sëriñ Ibrahima Gay Diouf mook sëriñ Ibrahima Gay Diouf nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee nag soxna Mati Diouf bintu soxna Xadi Diouf bintu sëriñ Ibrahima Gay Diouf soxna Fatima yi Diouf bintu soxna Xadi Diouf bintu sëriñ Ibrahima Ibrahima Gaye Diouf soxna Adama Diouf bintu soxna Khady Diouf bintu sëriñ Ibrahima Gaye Diouf ñetti bant yi nag la ko suñ boroom nag dénk ak sëriñ Ibrahima Gaye Diouf ci dëkk boobu nag di siin cuuna nekkin nag ci wetu ngaay nag ak jogo mu wéy des foofu nag ci loxoy sëriñ Ibrahima Gaye Diouf moom soxna Khady Diouf nag njaboot googu nag mu am ak sëriñ Ibrahima Gaye Diouf muy soxna Mati Diouf bi mu matee dem kër ku ñuy wax nag sëriñ seex Sarr ci dëkk bi nag di Toffi Caareen nag lañ ko joxoon mook sëriñ Cheikh Sarr nag am nañ nag ak njaboota ñu mën caa nag soxna Daba Sarr sëriñ Issa Moustapha Sarr Serigne Moustapha Sarr ak soxna Fatou Sarr moom soxna Khady Diouf nag doom ji nag di soxna Faati May Diouf bi mu matee dem kër Serigne Abdoulaye Khady Diouf nag lañ ko joxoon mook Serigne Abdoulaye Khady Diouf nag moom Serigne Mor Diouf jati nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee nag Serigne Cheikh Diouf mi nekk nag xalifab Serigne Abdoulaye Khady Diouf nag jamono ji soxna Khady Diouf nag doom ji nag di soxna Adama Diouf bi mu matee dem kër Serigne Daaru Gay nag lañ ko joxoon ci dëkk bi nag di Touba Jati Diouf mook Serigne Daaru Gay ci dëkk cee ràññee nag sëriñ Modou Gaye soxna Faati Gaye soxna Nogay Gaye ak sëriñ Abdou Lahad Gaye njaboot gii nag ñooy sëti soxna si sëriñ Ibra Gaye Diouf moomu nag ñu jébbaloon nag soxna Xadijatu Diouf ci mag ñi toppoon nag ci ginnaaw sëriñ moor juuf Jati la jàngalekatu alxuraan itam nag bu mag a mag nag la woon sëriñ Mor Diouf Jati itam nag moo ko jëlee ci dëkk boobu nag di siin cuun indi ko nag ci dëkk bi mu sancoon nag di daaru mbooy bi mu ñëwee itam nag mu jébbal ko nag daaray alxuraanul karim ja ba bari na itam nag ci njabootuk sëriñ Mor juuf Jati gi sëriñ Ibrahima Gaye Diouf mi nag moo leen jàngal nag alxuraan alquranul karim bari na itim nag ay jarbaati sëriñ Mor Diouf Diatty nag ak nag ay taalibeem ba tey itam nag sëriñ Ibra Gaye Diouf mi itim nag moo leen jàngal nag alquranul karim sëriñ Ibra Gaye Diouf nag jógee siin mu dëkkoo woon di soxna Xadi Diouf ci dëkk boobu nag di daaru mbooy taxawaayu soxna si itim nag ci dëkk boobu itim nag na itim nag sëriñ Mor Diouf Diatty nag gërëm ko nag sëriñ Ibra Gaye Diouf mi mokku ñu wax nag sëriñ Alioune Niang nekkoon taalibey sëriñ Mor Diouf Diatty ñoom itim nag la sëriñ Mor Diouf Diatty nag digaloo na àjjuma ju nañ bàyyi bàyyikoo nag daaru mbooy ñëw nag daaru juuf di ko wàcceel nag kaamilu alxuraanul karima ngir sëriñ moor juuf jati nag def ko addiyey ku baax ki sëriñ tuuba seexul xadiim njàngum kaamil moomu nag sëriñ ibra gay juuf nag daa def sëtëm bu ñuy wax nag sëriñ cheikh juufa moo wéyal nag loola jëmm jooju nag di sëriñ ibra gay juufa moom lañ jébbaloon nag soxna xadijatu juuf mii nag ñu fa yéene waxtaane tey jii moom soxna xadijatu juufa nekk nag jigéen joo xam ne nii jigéen la nag ju jàmbaare jigéen la itam nag ju bëgg sëriñ tuuba seexul xadiim jigéen la joo xam ne itam nag juñ mata roy la bëgg lu baax lool nag mu nekke woon laata muy génn àdduna lu baax nag li mujjee yéene mën nañ caa ràññee am xar nag mu mu yaroon nag biir këram xar ma nag jigéen la woon xar ma itam nag dafa tolloon nag ab diggante ci bi xar mi tollee nag ab diggante la woolu woon nag kenn nag ci ay doomam muy soxna Adama Diouf di ko xamal ne daal sama xar mi nag laa bëgg nag nga topp tool ma ko yaral ma ko nag bu baax a baax a baax diggante bii mu toll nag saa bu ci muccee doom ja muy am nga doom ja nag topp tool ma jébbalal ma ko nag ki fi nekkal nag sëriñ Touba Cheikhul Khadim te booba nag mooy sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacké noonee mu ko yéene woon ni la ko doomam ji nag di soxna aadama juuf nag wéelee ginnaaw nag bu mu fi jógee xar moom itim nag mucc nag ci doom jooju nag mu ëmboon soxna aadama nag fam na xar ma nag yar ko ba xar ma mat nag xar ma nag xar mu jigéen la woon mu jébbal ko nag sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacké di ko xamal ne nag sama waajur woon nag soxna Khadijatu Diouf nag moo ko yéene woon lii itim nag la ma digaloon nag ma defal ko ko mooy mi nag yit sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacke mbooloo mu takkoo takkoo takku nag la soxna aadama Diouf nag àndaloon ngir yóbbu nag yéenay waajuram wam woowu ca mbooloo moom nag ñu àndaloon ñu ràññee ci nag ku ñuy wax sëriñ Omar Diouf ibnu sëriñ Mor Diouf Jati moo jiite woon itam nag délégation ba ak ku ñuy wax nag sëriñ Maam Cheikh Diouf ak sëriñ nu Diouf ak ku ñuy wax nag Baye sëriñ Gaye sëriñ Saliwu Ñing ku ñuy wax nag soxna Faati Ñing ak moom nag soxna Adama Diouf bi ñu eggee nag ci Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacke sëriñ Omar Diouf moom sëriñ yëkkati nag ay kàddu ci turu nag délégation bi wax ak sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacké di ko xamal ne daal kii ñu àndal nag doomu soxna Xadijatu Juuf la di soxna Adama Juuf waajuram nag soxna Xadijatu Juuf moo dénkaane woon ne xar mu jigéen mam amoon nag këram dafa tolloon nag ab diggante mu doon sàkku itam nag ci doomam ji di wax ne daal xar mi nag saa muccee doom ja muy am yaral ma ko nag ba matum xar nga jébbalal ma ko nag sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacké yéene jooju nag soxna Xadijatu Juuf amoon moom la doom ji nag mataloon moo taxoon nag mu faboon xar mi nag indil la ko bisub keroog nag sëriñ Touba Cheikh Abdou Lahad Mbacké wax nañ ne nag bégoon na ci keroog doon xamal nag sëriñ Omar Diouf di ko wax ne soxna Adama Diouf mii yéene waajuram nag ji mu matal waaye nag soxna Xadijatu Diouf keroog nag bi mu yéenee nag addiyee jooju lañ ko nangu woon daat cay sant nag bu baax a baax nag ñaanalaat nag délégation bi lii itam nag soxna Xadijatu Diouf nag def na ko laataa nag muy génn àdduna ba tey jàmbaaruk soxna Xadijatu Diouf buñ delloo nag ci doom ji nga xam ne ni nag càmmiñam nag moo ko foboon nag joxoon ko ko di nag bawu fi nag doom ju góor waaye sëñ góor a juuf mi lañ ko joxoon nag mu mel ne doomam sëñ góor a juuf itam nag wax na ne waajuram woowu nag di soxna xadijatu juuf jaasi lislaam nag la yoroon taxawaayu nag jigéenu lislaam itam nag la yore woon docteur nag la ko jàppe woon ci lislaam ji sëriñ góor juuf moom itam nag xamal nañu ne wala wax na ñenn itam nag ci jàmbaaruk soxna si kiñ ko booleeloon nag ci néegu sëy muy sëriñ ibra gay juuf soxna xadijatu juuf itam nag jàmbaar nag la woon itam nag ci ronam sëriñ ibra gay juuf moomu sëriñ moor juuf jati nag moo ko yóbbu yóbbu woon ci dëkkam bii nag di daaru mbooy joxoon ko fa itam nag daaray alxuraanul karim nag muy jàng nag ak nag di jàngale moom sëñ Ibra Gay Juuf moom itam nag sëriñ Moor Juuf jati doon na ko xamal na itam nag ajuma ju jot nanga nga bàyyi ko nag daaru mbooy ñëw nag daaru juufa wàcceel na fi nag kaamelu alxuraanul karima noonu itam nag sëriñ Ibra Gay Juuf itam nag sàmm na ko ci diirub dundam jëmm jooju nag lañ boole woon ak soxna Xadijatu Juuf mii ngir mu dëkkoo ko nag ci wàllu kër daara jooju mu yoroon nag ci daaru mbooy soxna sii nag di soxna Xadijatu Juufa moo nekkoon nag bàjjonu donga yi donga yu bare bare bare bari nag yu jaar nag ci loxoy sëriñ Ibra Gaye Diouf mii seede nañ ne soxna Xadijatu Diouf su fa amul woon nag soxna Xadijatu Diouf nag ba tey itam ci fépp foo xam ne ni daal sëriñ Ibra Gaye Diouf itam na fa taxawaay bu mat sëkk nag la amoon nag ci ronam nekkoon na ci na ku daa ñaan itam nag ci wàllu àdduna mbooloo moomu daa fa ñëw itam nag ci wàllu jafe-jafe soxna Xadijatu Diouf mii itam nag ku leen daa taxawu la ba jortoon nañ ne daal saa buñ masaa ñëw na kër sëñ Ibra Gay Juuf buñ fa fekkee nag soxna Xadijatu Juuf mii seen jaaxle nag du sori wala seen jaaxle nag du metti loolu itam nag ñu baree baree baree baree bari ñu xamoon sëñ Ibra Gay Juuf xamoon soxna Xadijatu Juufa seedeel nañ ko nag soxna sii noonu mu meloon nag ci kër googu mu nekkoon nag di fa liggéeyal suñ boroom nag ci wàllu néegu sëy noonu itam nag ni la meloon nag ca mboolem dëkk boobu nag di daaru mbooy bari na nag ñu fa nekk nekk nag ay jeeg nag jamono jooju seede nañ ne nag soxna Xadijatu Juuf mii daawul boddee daawul am saa boo ci demee waxtaan ak moom kenn du ko yëg te dana faju képp koo xam ne itam nag am nga fa doom seede nga ne daal soxna Xadijatu Juuf sa doom jooju nag defoon na ko nag ne doomam moo daa fop moo daa nax daaru mboy googu nag la mujj nekk nag ba ci atum 1969 kiñ ko boolee loon nag ci néegu sëy di sëriñ Ibra Gay Juuf génn nag adduna mu wéy nag nekk nag ci dëkk boobu nag di daaru mbooy nag ab diir bi nekkee daaru mbooy googu nag ab diir nag la magam ju jigéen nag génn àdduna ci dëkk bu ñuy wax nag Tofi mu demoon Tofi nag seeti ko kër sëriñ Njaay nag la nekkoon nag ci tufi ginnaaw bi nag la ko doom ji nag di soxna Adama Juufa moo toog sax na ab toogaayam jamono jii jëlee nag ci dëkk boobu nag di tufi indi ko nag Tuubaa ndax booba itam nag soxna si nag jëm na Makka ci loxoy soxna Adama Juuf mi nag di doomam nag la wéy nekk nag ci Tuubaa ba nim génnee àdduna nag ci atum 1985 mi ngi génn àdduna nag ci dëkk bi nag di Tuubaa ci feebar nag bu ko tëral moom soxna Xadi Juufa ci bisub altene fukki fan ak benn nag ci wu maamu koor ci atum 1405 nag ci gàddaay gi altene fukki fan ak benn nag ci wu maamu koor koor ci atum 1405 nag ci gàddaay gi dëppoo nag muy lundi 4 mars 1985 lundi 4 mars 1985 ci fii ñu tudde nag Touba Jati Diouf ci Daarul Xuddoos ci kër googu nag la génnee àdduna sëriñ Omar Diouf nag di doomu sëriñ Mor Diouf Jati nag moo ko jullee ñu jébbal ko boroomam nag ci armeel yu mag yi sëtam bii ñuy wax nag sëriñ Modou Awa Balla Diouf di doomu sëriñ Cheikh Diouf wala sëriñ Modou Awa Balla Diouf nag bu Touba Aliya def na nag tuuti nag ab tënk nag ci dundug maamam googu yuufa soo delloo nag ci tënk boobu nag mu def nag ci maamam ci kàllaamay arab nag la ko jaaralee moom sëriñ Modou Awa Balla Diouf nag mu ngi ñuy xamal ne wala mu ngi wax nag ci tënk bi ci ginnaaw bu mu nuyoo nag ni jullit baaxoo nag di nuyoo mooy sant nag suñu boroom julli nag ci ab yonentam gërëmitim nag ay sahabaam sant nag ki taxawal nag tariixa bii mu bokk nag muy muridiya mu ñuy wax nag tënk bu gàtt nag la defal nag maamam soxna xadijatu juufa mu nekkoon nag jigéen joo xam ne nag ci lislaam nag la bokkoon yonentam waaye ku bëggoon nag seexul xaddiim nekkoon nag jaamukatu suñu boroom ku doon tuub nag di jëmale nag ci suñu boroom nag ba tey mu nekkoon nag ku daa sellal nag ay jëfam nekkoon nag jigéen itam nag ju fegu nekkoon itam nag jigéen nag ju téye boppam nekkoon itam nag ku maandu ku doon topp nag boroomam nag buur bi tabaaraka wa la waaye ku sàmmoon itam nag kiñ ko boolee loon nag ci néegu sëy yëf yi boppam nag dëwu ci wax dara kiñ ko boolee loon nag ci biir këram la daa bàyyee boppam nag muy sëriñ Ibra Gay Juufa lépp lu mu dogal nag ci moom nag neex na ko gàttañlu nag benn yoon nag ci yar nag njaboot giñ ko booleel rawatina nag ay doomam rawati na nag jigéen ñi nga xam ne nii nag saa bu leen masaa wax nag ñu déggal ko ñoom itam nag saa su ne lu baax nag la daa wéy nag di leen ko xamal donga yi nga xam ne ñooy donga yi nag sëriñ Ibra Gay Juufa saa su ne itam nag daana leen xamal ne am njàng nag yàggul waaye itam nag saa boo ci jógee itam nag def lu baax itam nag méttiwul ndax ngërëmul suñ boroom rek nga ciy jëlee ba saa bu ëllëgee nag da nga xam ne nag lu baax la nga doon def nag moo la may lii roy jigéen ñeeg donga yi tim na xamoon nañ ne soxna sëriñ Ibra Gay Juuf mii nag royu kaay la nag di soxna Xadijatu Juuf man nañu wax ne daal jikkoy turandoom soxna Xadija la yore woon nag moom soxna Xadijatu Juuf mii jikko jooju mu yoroon nag moom soxna Xadijatu Juuf saa boo gisee ak njabootam nag da xam ne def na ko nag ci moo tax nag jigéen ñu mel nii nag jigéen ñi royukaay lañ jigéen na la ñoo xam ne nii nag képp kuy jigéen nag war ngaa roy nag ci ñooma njaboot gi mu am itam nag ci loolu la leen tàggat ba mën nañoo wax ne daal ay royukaay lañ ay misaal la ñuy tim nag ci yoonu murita muy njabootuk soxna xadijatu juuf ndax seen waajur nag noonu la meloon lu takkoo takku daal la ci sëtam bii nag di sëriñ moodu awa balla juuf nag moom sëriñ cheikh juuf wala sëriñ moodu awa balla juuf nag bu tuubaa aaliya nag bind ci kàllaamay arab nag ñu teewlu ko bismillahi arrahmani arrahim qit'atun xaqiratun fi axlaaqi sayidati alkarima asayidatu xadijati juuf kaanat min almuminati almuslimati almuxsinati alxaanitati altaibaati alsaaihati almuxlisaat kaanat xafifatan wa muti شفيعة لبعلها لا تتخير في أمرها ولا تأتلي في تربية أبنائها تربية الإسلامية حتى زاروا سموسا في الليالي أدل الهدى ومسابقين في الخيرات ومسارعين إلى مغفرة من ربكم بل كانوا قدوة حسنة لأبناء الإسلام ونموذجا في الطريقة المريدية فإن التحدث بأخلاق هذه السيدة الكريمة هذه الزيدة الكريمة التقية baqiyatin naqiya yastaxriqu aqwaatan kasiira laakina dayqa alwaqti wa kusrati alsawaaxili naxtasiru bi haasihi alqitaati alxaqiira wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin ay xalifaam nag nii la tëdde nag moom soxna Xadijatu Juuf li ko dalee nag ci atum 1985 ba ci atum 1995 soxna Mati Juuf moo toog nag ab toogaayam ñaareelu xalifab soxna Xadijatu Juuf mooy soxna Adama Juuf moo fi toog nag ci atum 1995 nag ba nëgën nii ñu koy ñaanal nag suñu borom yàggal ko nag ci toogaayu waajuram boobu ak mbooleem nag ñu mu séqal nag soxna Xadi Juuf soxna Xadi Juuf nag am na bis nag buñ koy fàttaliku ci liñ tuddee ak màggal doom ji nag di soxna Juuf moo jàppoon nag ñeen fukki guddi yu soxna si di ko ci fàttaliku ci ginnaaw nag bu mu ko laajee nag xaritu soxna si di bàyyi sëriñ Njaay Gédé bàyyi sëriñ Njaay Gédé itam nag jàppaloon ko nag fukki fan ak benn nag ci ndeyu koor dëppoog nag muy ñeen fukki guddi yu soxna si mu di ko xamal ne daal soxna Xadi Juuf nag mën nañ nag di ko ci fàttaliku boobaak léegi itam nag ñu ngi ko ci fàttaliku fàttaliku ci bis boobu ci njiital doomam nag soxna Adama Diouf ci kër gii nag njabootug sëriñ Mor Diouf jati nag am nag ci Touba ci daarul xuddoos nag ñu koy wax nag jati Diouf foofu itam nag lañ koy fàttalikoo ñuy ñaan ca doomu jati Diouf ja soxna Xadi Diouf yàlla nañu ko suñ borom fayal nag te yokk ay leeram te taas ñu itam nag ci barkeem li di jafe-jafe réew mi itam nag yàlla na ko suñ borom saafara ca dara jëy sëriñ Mor Diouf jati amiin Mor Diouf jati